Fatou Touré Thiam maa ngi lay nuyu fàttali rek ne yow yaay chargé de programme réseau Siggil Jigéen tey nag muy bés bi ñu jagleel lépp li jëm ci xeex xoqatal gi ñuy teg léeg-léeg ci kaw jigéen ñi mën nga dellu si rek ci solo si ak mbébét gi la. waaw bis dafa am solo le vingt cinq novembre dafa am solo ndax mooy bis bi nga xam ne moom lañ jagalee ci euh, àdduna yëpp euh, xeex métit yi ñuy teg jigéen ak xale yu jigéen yi. donc mu nekk bis boo xam ne euh, dafay euh, nekk une euh, mobilisation mm-hmm. nekk également une campagne campagne de lutte ba le 10 décembre le 10 décembre mooy journée de déclaration des droits de l'homme muy ñu defoon ko en cent 1948 donc gis ngeen ne droit de l'homme moo nekk fii u journée de lutte moo fa nekk parce que violence saa yi bu ñu ko waxee rek c'est parce que bafoué nañu ay droits mm-hmm. donc droit des femmes moom la ñu respecté wul surtout les droits humains des femmes et des filles respecté wuñu ko hmm. donc il ñu wax euh, bu ñuy wax violence il faut ñu laal les droits parce que foofu lay génne hmm. violence nag boo gisee mu nekk euh, loo xam ne adduna yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy célébrer ak di ci def ay bilan et tout ça c'est parce que moom mooy violence bi nga xam ne moo gën a touché moo gën a jigéen ñi te moo gën a wër adduna hmm. loolu moo tax euh, ñu def ko campagne de séjour yoo xam ne durant ces six jours nous allons peut-être faire le bilan dénoncer des attitudes revenir sur les droits humains mais également joxe ay stratégies yoo xam ne des stratégies de prévention ak ay stratégies de prise en charge parce que quand même euh, ñu violenté la nekk na loo xam ne day laal jigéen ji ci euh, ci yaramam en général mais nekk na loo xam fi mu koy gën a laal mooy ci xelam Mm-hmm. mooy les euh, violences psychologiques mais également xam ngeen ni violence euh, économique bi am na ak yeneen type de violence yoo xam ne vraiment boo ko seetee jigéen la gën a touché ak xale bu jigéen que euh, góor ak xale bu góor moo tax mu mm. lan la war a mën a def rek ngi mën a gën a sàmm tamit jigéen yooyu la waaw li ñu war a mën a def def nañ ko ci bi mooy dañuy dañuy ànd doo unis tous unis loolu la Nations Unies wax mais pays boo dem neena bu ñu uniree nañu nañu riposter parce que ku lay dóor da ngay fayu dañuy riposter mm-hmm. ba pare euh, def euh, def construction parce que dans certaines sociétés les gens n'ont pas compris très bien compris les violences dañu yaakaar na rek am nañu droit boobu ci seen soxna yi wala am nañu droit boobu si jigéen ñi te loolu jóg na fi loolu jóg na fi ndax euh, euh, société bu nekk day répondre à un contexte hmm. donc il faut ñu reconstruire mentalité yi il faut tamit ñi nga xam ne nekk nañu victime de violence ñu jël leen protéger leen jël leen en charge sur tous les plans hmm. ba pare permettre leen également ñu revenir dans la société réintégration mais réintégration qualitative mooy ñu dem ba euh, jàppale leen am autonomisation parce que loolu dafa am solo que les femmes soient autonomisées parce que violence yu bëri c'est parce que les femmes presque euh, dañuy am benn dépendance te dépendance yooyu dafay tax yow doo mën a satisfaire à tes besoins dafay tax yow nga vulnérable mooy da ngay topp si ginnaaw nit ki lay jox añal reer ak wala di la di la fajal sax sa problème boo xam ne yow lu tuuti la waroon nekk kooku di la ko fajal donc dafay dem ba jàppale benn doomu aadama boo xam ne moom sañ na lu nekk ci yow. Mhm. alors ci ban situation euh, tey jii la jigéen ñi di gën a dund nag violence bi. dañu ne dañu ne loolu OMS moo ko wax OMS nee na un quart des femmes. Mhm. ci âgé de quinze à quarante neuf nekk ci sëy ñu topp leen ci biir sëy bi xool leen. nee na un cas boobu toujours dañuy am violence donc dañoo jàpp ci biir sëy yi couple yi wala si biir partenariat bi parce que am na dëkk yoo xam ñoom partenaire lañu xam mhm. foofu la violence bi di ëppee. foofu la violence alors ñu gis ne femmes mariées yi tamit ñoom ñoo gën a exposé wu euh, ci lu ni mel ñu jël kaawu ki nga xamante ne mooy Dieynaba Ndiaye ak euh, ñi nga xamante ne nag jëkkëram da ko doon dóor euh, tey jii lii ana lan mooy waral lu ni mel. waaw mi ngi noonu am na ñoo xam ne yàlla def leen a jox violence mais lu ci ëpp nag suñu société moo tabaxee noonu jox góor doole jox ko doole ne ko yaay jëkkër yaay di yaay di donc euh, dafa mel ne suñu société dañu góor gi jigéen ji yow ci sa merci la nekk loolu nag il faut le déconstruire mooy déconstruction bi ñuy wax ba pare construiraat ko wan leen neleen jigéen ñi am nañu seen ay droits humains jigéen ñi mën nañoo taxawee fii jigéen ñi et y a beaucoup exemple au niveau du Sénégal jege na ba boobu jigéen ñëpp a ko jooyal. Hmm. jigéen ñëpp a ko jooyal parce que même même si la femme est difficile comme on prétend le dire tu n'as aucun droit pour la amoo benn droit pour dóor ko amoo benn droit pour saaga ko amoo benn droit pour xëy suba la la war war ko parce que y a des rôles ku ci nekk la nga la la la war la la war war ko mu di ko def yow doo ko def. loolu dafa am solo te il faut ñu revenir ci dans certaines sociétés yoo xam ne ñooñu ñoo gën a dëgër sax parce que ñooñu dañoo yaakaar ne dóor jigéen yoon la hmm. dañoo yaakaar ne méttital jigéen yoon la ñooñu également il faut ñu sensibiliser leen teg di loolu nekk seen bopp ba ñu gis ne àdduna demewul noonu hmm. àdduna dafa toog ci ay yoon yoon yoo xam ne boo ëppalewu ci jigéen ku ci nekk da ngay jël sa wàll alors ñu gis ne euh, ndaw yi tamit euh, mooy tout tànk yi euh, jigéen ñi nga xamante ne léeg-léeg dañuy subir ay violences sexuelles lu ci mel ni viole bi nan nga yi tamit situation boobu li waaw loolu moom laa moom laa wax sànq si français bi. Mhm. nee naa nee naa état du Sénégal dafa yàgg protéger ndaw yi ndax dañ leen a yàgg violé. Mhm. dañ leen yàgg teg également jongal jigéen bi. Mhm. nga xam ne dafay dafay def une atteinte à l'intégrité physique de la femme maanaam jigéen bi. bu ñu jongal dañ la wàññi jigéen bu ñu violé dañ la wàññi surtout bu viol bi àndee ak inces mhm. jigéen boo xam ne également teg nañ la euh, viol mën nañ la teg grossesse indésirée mu nekk nekk benn benn euh, perturbation boo xam ne jigéen ci dina ko dund tout sa vie mhm. donc ñu jox ñu ci une loi depuis quatre vingt dix neuf te dernièrement également gis ngeen ne la loi de nekk na benn loi boo xam dafa protéger waat davantage li nga xam ne mooy jigéen ak violence yiñ koy teg surtout viol bi pédophilie bi ak taxawaay boo xam du taxawaay bu baax par rapport ak jigéen ji donc euh, Sénégal may nañu ay textes ñun tamit les acteurs de la société civile dañu yàgg ñafe pour am loolu les Nations Unies dañu ñafe ñëpp ñafe quelque part pour que les violences quittent les pays pour que les violences jóge ci foyer yi pour que violence yi jóge ci communauté yi parce que bu fa jógewul yu aura pas ñuy wax góor ak jigéen hmm. tolloo tolloo ci taxawaay ci société hmm. ñu koy wax tolloo ci droits humains bu loolu amul dañu ne euh, les nations unies l'ont dit tout le monde l'a accepté tout le monde l'a dit société boobu du am développement du am développement hmm. ça veut dire il faudrait que violence yi wàññeeku jigéen am taxawaay bi mu war a taxaw mën a def dooleem ci biir dëkk bi nga xam ne dëkk boobu la bokk mën a taxaw mën a ak accéder ci li nga xam ne mooy waxtaanukaay yi ak jëlukaayu décision yi mën a accéder tam ci li nga xam mooy contrôle bi contrôle bi pour que société mën a développer te loolu dernière évaluation yi ñu def dans ci yenn ay yenn ay jotaay yi dañoo wone ne loolu amagul léegi hmm. amagul léegi moo tax nag looloo waral ne xeex bi dañ ko war a dañ ko war a intensifier renforcer ko dañu war a xeex bu baax a baax a baax a baax. très bien et euh, euh, ci la ñu toll. Hmm. ci ces jours d' activisme ñu mujj koo def campagne ndax premier jour rek la woon ñu ne euh, journée de lutte contre les violences. Hmm. mais léegi dañ ko def ces jours ndax mu am impact parce que gouvernement yeeg ñëpp dañu war a jóg ànd ci xeex boobu. société civile ñëpp képp ku nekk au niveau au niveau des pays et des régions da nga war a jóg xeex ko mu nekk euh, xeex boo xam ne loxo yëpp ci dugg ndax mu dellu gannaaw ndax fi jigéen war a àgg mu mun fa àgg fi société war a àgg mu mun fa àgg mais également fi dëkk war àgg parce que dëkk ñaari nit a koy développé mooy góor ak jigéen fu mu war a àgg mu àgg fa très tu Fatou Touré Thiam jërëjëf may fàttali rek ne yow yaa yor lépp li jëm ci wàllum programme ci réseau Siggil Jigéen ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup